ma noo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba dinay tukki mbokk yi ay bis yi weesu doon nañ waxtaane ni ab jullit war a xame yi war a jiitu tey sàmmoonteeg loola tey nag nu bëgg a waxtaane lenn lu bokk ci yépp solo ci yi war jiitu te mooy xam xam lu jiitu jëf balaa nit a def dara mu xam loola ndax lu yàlla digle la walla lu maye la walla lumu tere la yàlla ci boppam moo wax ne ñi ko xam rek ñooy ñi ko mën a teg fañ ko war a teg dëgg-dëgg yonente bi itam sallallahu alayhi wa dinu xamal ne sàkku xam-xam farata la ci jullit bu ne la tax rek mooy lu muy def lu nekk ak xam daca caa war a jiitu moo tax kon sàkku xam-xam di farata ci moom muskàllaf mu nekk itam day araam ci moom mu def lenn te xamul la ca yàlla àtte moo xam la day lool digganteem ak boroomam la wala muy lool digganteem ak boppam la wala muy lool digganteem la ak bindeef yi ci des sëñ bu mag bi mi ngi wane loolu di wax ne def lenn day araam ci mu kàllaf mu def lenn te xamul lu ca yàlla àtte moo tax mu wax ne nanga na jiital xam bala ngaa jaamu yàlla bala ngaa def lenn lu mën di doon li tax nag ñu war a jiital xam yu bare yu bari mën naa tax waaye mën na cee tudd rek yaar bokk na ci ne jëf balaa wér tey dëppoo ak nañ ko sakko dañ ko diglé bu yalla santane, ki def lu yalla santaane bala jëf jaay wër day dëppoo ak nako ko yàlla santaane te mbir defé ko nañ ko santaane lay tax nit man ko moy mu xam moy mu xam niñ ko moy tax mon ko nañ ko sét nañ ko nañ ko te mbir du wër li feek defé wuñ ko dañ ko kon loolu tax na ba njëkk a xam kon doon lu munta ñàkk ñu war koo jiital bala ñoo jëf ñu jiital xam gi ba noppi bokk na ci it yi tax nu war a jiital xam bala noo jëf mooy ne jëf joo xam ne ak xam da koo lal moo ëpp mooy ëppal njariñ ci ko def jëf joo xam ne ak xam lalu ko mooy ëpp tuyaaba mooy ëpp ab yool loolu sëñ bu mag bi moom itam feddili na ko wone ne jëf mooy xam mooy laltaayu jëf mooy laltaay jëf te jëf ju néew ju ànd ak xam moo ëpp tuyaaba jëf ju bari ju àndul ak xam bu ñuy wax nag ne xam dafa war jiitu jëf kon ñi toll ci sàkku xam-xam kon nañ jëme seen yitte ci sàkku xam-xam ñi ci toll nag lu ci bari dañuy nekk ci ak kilifteef seen jur ñooy nekk seeni kilifa kon jur yi war nañuy taxaw seeni jaboot kon ba bu ñu tollee ci jàng ñu jàng jiital xam gi ba bu ñu àggee ci doone muskàllaf fekk lañ leen di sant buñ koy def ñu teg ko ci ñu teg ko ci ak xam ndax xam gi moom wàccut ndaw wàccut mag waaye nag ci ndaw la gën a yombe waxtu ndaw sàkku ci xam-xam ci lay gën a jàppande moo tax sëñ bi wax ne koo xam ne bi muy nekk ndaw dafa ditteem jépp ci xam-xam ba ay soxla ñëw ak ay yittee ki yu mel noonu bu boobaa bu ca bëggee dara it lam ca bëgg dana néew loolu mën ko caa am ku bàyyi ba yittee ñëw mu bëgg di sàkku xam-xam lu ci bari du ca mën a amee lam ciy bëgg noo ngi ñaan yàlla mu defal ñu àdduna ak wa àllaaxira musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil nu bunt yiw yi soob nu ci ak njub mottali sunuy mébét may nu fanu gudd ak wér ak mujj rafet